عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق سنجدنا الله الله دينا مقدم Abdou Gaye di ko doog yàlla ci liggéey bi nga xam ne jàppale ngeen ko ci loolu liggéey yàlla ko yàlla gis yàlla ko Cheikh Ahmed Sène gis yàlla ko Baye gis yàlla ko yàlla dëkk gis muy tàmbali tey jumaa ji ci nga xam ne yàlla ka tax mu tax ndax béykat bi nag nit bala moo tabax jumaa dem ba am xaalis bu am naa tabax li daay doog a wax waaye nag doyloo yàlla doyloo yàlla jox yàlla sa bopp yàlla na ko bàyyi nee na yàlla bëggut boo gën ndax loo ko defal rek mu fay def bëggut boo gën kon yàlla bi nga xam ne moom nga defal ne bii yàlla gis na ko yàlla roogaat sa mboole bi ñëw di bàyyi dafa ci yoon bi wala Cheikh Ahmad Tijaan ñu da ay ci yàlla yi amul benn tare tare xam tare amul benn sëriñ itam loolu Cheikh Ahmad képp ku nekk suñu sëriñ dañu ko nekkal parce que dañoo nandal ci ñun tariqa tijaan loo xam ne daañu ci mën a sànnee ci tariqa kon loolu mooy li nga xam ne mooy suñu aada bi fu ñu dem dañuy yokk waaye duñu wàññi te fii bi ñu koy jaar atam bi ñu koy ñu koy rëdd boo ko dara nëw tey sax dana gën a màgg ci taalibe ay bunt yaatu yaatu yaatu lépp loo xam ne bëgg nañ koo defal Cheikh Ahmed Tidiane bëgg nañ ko defal yoonu dugub bëgg nañ ko defal baay ñu ñu di xar kenn ñu jëm si mënal kenn mbokk yi ñu leen di dénk ragal yàlla ndax yàlla ragal yàlla mooy capital doomu adama bu nekk ndax yàlla mooy nga xam ne moo njëkk moo mujj moo feeñ moo nëb moo fi nekkoon ci dara nekkoon moo fi des bi lépp jógee ñu li nekk nekk itam yàlla bi ñi ko xam-xam nañ ko ñi ko xam itam yàlla ñu ko ay ay ay yàlla kenn liñ xam bu ñu sañoon ànd bi yëpp xam ndax dafa yombal liggéeyam kon mbokk yi ñu góorgóorlu bu baax a baax te xam ne bu dee yaa ngi nii kenn ku nekk pour nga dundal ci suñu sa kanam. bët bu set kon nañ bàyyi te liggéey ngir ëllëg ndax liggéey ëllëg mooy li nga xam ne mooy fay booba ci yàlla ndax nit dana yow yow xiyaamati comme ni ko yeneen bi doon sallallahu alayhi wa sallam ay orom bëri lool ay ajam dara manku ci asakaam dara manku ci yow dina ko dina ko def yëpp na mu wuj ñu ne ko lu tax ñu ne euh, suma sànni lu tax nu mu woo ko bu ko àndal bu ñu wax ko nit ñi wax nañu ko kon nag sa sa am nga sa gën a góos kon lépp looy def nag lu yàlla tax parce que yàlla kenn mënu ko nag ci moom ndax boo nekkee ci biir nee biir boo nekkee ci biir te mu ci biti boo nekkee yow kenn mu ne ko yow boo ànd ak mbooloo muy ànd ak yow kon yàlla moom kenn mënu ko nañ góorgóorlu bu baax a ci jaamu yàlla nañ góorgóorlu bu baax ci yàlla nañ sënam may nañ yàlla ubbilal buntu wërsëg yi nañ yàlla ubbilal buntu wërsëg yi nañ yàlla ubbilal buntu wërsëg yi nañ yàlla may loo xam ne du jeex waaye daal na wax ne yow sama borom lu ma la ñaan jox jeex mu ñaanal la dégg na dama bëgg nga may ma sama oh. may ma sama ko rek mu noppi parce que koo xam yàlla loolu lépp looy def yàlla la koy wax te yàlla moom kenn mënu ko fay gis nga ndox mi ngay naan sax yàlla mën nga góorni ñu ko mambal yàlla indi la la boo xiifee yàlla ngay yónni damaa yàlla dimbali na leen boo rafetee yàlla ngay yónni vraiment rafet yàlla tënk na kon yàlla moom moo xam ne mu ngi ko dugg ci soxla yi nañ jéemal dugg ci ay soxlaam soxlaam yëpp mooy ñëpp dem aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñëpp bay dem aljanna moom la siy bañ moom kan mooy bañ a dem aljanna mu ne ku ma gëm ma topp ma kooku moo bëgg a dem aljanna waaye ku ma weddi boobu moom boobu la doon ñun day bëgg nañ ko topp nañ ko te ñu ngi moom te ñu ngi yaakaar ndam ne incha allahu taala ñooy dëkk moom ci àjjana mbokk yi góorgóor leen bu baax a baax yàlla amee du jeex te liñ joxe du tuuti la par rapport ak liñ dese nañ ko juddu daayiman di ko fuglu lépp loo xam ne nag nit ki jot na nit ki ci safaan bu mu ko bu mu bu mu xam ne yàlla ma ko teg waaye wax ne samay bàkkaar la ko teg su ko defee nga tuubal say bàkkaar bu ko defee yàlla baax na say bàkkaar te bu la baaxalee rek soppi la say mbir yëpp ñu gën ñoo gën a baaxee ñu gën a rafetee ñu gën a yàlla mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax léegi yàlla nag dama wax koo tax doyul ne il faut ngeen koy dundal ndax léegi yàlla yi mooy ñooy soo soobekaay soobekaay yi ëllëg yonent bi nee na pour dugg ci jàkk yi di ko dundal bu yomal xiyaamatee jàkka yi suuf bee buntam di oo ñu ma xam ne ñoo ko doon dundal soo jiwee ne nañ leen ko dañ koy tëj ci sa kanam kon dana ragal loolu ñun fexe ba bu bu yowal yàlla bi buñ demee jàkka yi jàkka yi bul seen i buñ yàlla may loolu yàlla may ñu ko yàlla jox ñu ko ci barke Baye barke Cheikh Ahmadou Tidiane barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na loolu yàlla ñu ko yàlla mën. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad